Assalamu beaucoup internet yu TV dans ak jam ci actu de la journée ñu tambalé ko journal bi di Les Échos bi ñu song ay bërebam ginaaw bi ñu altine Demb, ci Nekai ki di ñitalu Serigne coronavirus ci fatali mu le xibaar bu rédaction bi ba d'information yépp yàqu-yàqu ñu mën ci nemmeeku ay ordinateur yu ñu toj ak sàndi mu nekk nag lu ñenn ñi ci askan wi ñaw lu lool ñel yi la songu rawatina forum civil bu Birahim Seck jiite ci benn communiqué ñu ngi taataan yi li xibaar ci Pape njaay di détenu bi gëna yàgg ci kasowu Rebeuss yi ginnaaw ba ko suñu mokk taskatu xibaar yu TFM yi demoon taataani ci ay kàddoom mi ngi xamal ne li waral ndaw ñi di def ay jekk ba ci tëdd kaso dara waralu ko lu du sàngara si boobu tudd Jakarta tey jaax ñaar fukk képp ci suñu koppar mi ñu yëgal itam bépp ndaw bu terse ci yile bërëb du lenn lu dul jëfandikoo yile produit ci fàttali Pape Ndiaye mi ngi tollu ci ñeent fukk at ak ñaar ginnaaw ba mu tëddee ñaari fukk ak ñeent atum kaso ci wàccaayu tabaski bi Macky Sall di njiitum réew mu senegaal daldi dina gracier kii di Pape njaay ba mu dellu ci ay wéyjuuram ginnaaw ba ñu xamalee ni benn doom rekk la woon ci ñoom ñi Walum justice ak Bataille professeur Seydi ak kii di Amadou Ngom le tribunal des flagrants délits bu Dakar d'Adina dina àtte mbir requalifier mbir outrage à un agent dans l'exercice de ses fonctions te teg ci wax yu ñaaw ak xoxatal ci yile le président tribunal bi sukkandiku ngir condamner ingénieur bi ci liñu kay topé lu tollu juróom benn weer kaso yu mu dul tëdd ngoom Gueye nag ñàkk tëddam kaso ci procès bi da koy gërëmee kii di professeur yi ndax ñaanoon na ngir ñu bañ ko tëj bala mu koy jural ay jafe-jafe ci wàllu liggéeyam ci xibaar bi ci réew ak wàllum racisme bu benn doomu Sénégal dund fële ci itali di wuyoo ci turu Mamadou Dabax Mankara ay atam toll ci ñaari fukk at ak juróom moom nag dañu ko daa di saaga ba pare teg ci ay dóor yu métti métti loolu nag ki ko def di ab benn doomu itali doon ko dàkk ci géej gi ndaxte nit ku ñuul la xibaar yi nag ñu taataane ko ci site bi ñuy wax Corriere point it dabar nag di ñu xamal que doomu itali bi daf ko daldi wax que ab nègre la que amul benn yoon palaasam fii ci ginnaaw ay werante yu dëgër la ko daldi di dóor ci kanam loolu yépp nag mu ngi xew samedi bi wees ci géej bi ñuy wax Castiglione Deya Pescara Mo am nak ay doomu Italie yu gisoon xew-xew bi ba pare di Dabar, mais dara mujj antu ki di doomu Sénégal bi Ti ci hôpital la mujjee ak certificat d'incapacité de travail bu juróom ñaari jeexale ko ak mercato ak kii di Aw capitaine équipe nationale bu Sénégal U20 te ñepp doon ko séntu ci FC Barcelona daal dina mujjé signé ci Portugal ci benn équipe bu ñuy wax Gil Vicente latéral gauche bi nak te ay atam tollu ci ñaari fuk at ak benn te ñu formé ko fi ci Aspire daal dina signé ab contrat bu ñetti at fofu nak dina fa fekk benn natangom sénégalais di Лев Барай. wàllum tàggat yaram ak li ci soxal Teungueth FC mi nangu bokka ci Ligue de champions africains ci saison bi ñu jëm ginnaaw bi ko fédération sénégalaise de football tabé champion ginnaaw bi ñu dàkkalee jongante yi ngir mbas mi di Covid-19 ci ab benn communiqué nag lañu équipe Rufisque bi xamal engagé wu nañu ngir bokk ci yile jongante ndax ñoom ñooy champion yi te dara du ko dàkk laata nag ñu ñuy dàkkal championnat bi Teungueth FC moo nekkoon ci bopp ba ak 12 poñ yu mu rawee woon ki topp ci moom ñoom nag di woye yaakaar ba tey kë ñii di waa fédération bi daanañu leen tab ak titre champion du Sénégal 2020 ci fàtteel ci fàttali ñoom dañoo daldi woon lank dem teewal Sénégal ci Ligue des champions africaine son titre champion bi mu nekk lu ñu dellu ginnaaw bi leen waa fédération joxoon ab ci 31 juillet bi. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci teewlu bile te di leen dig daje suba ci beneen actu de la journée.